Moussa Sarr ñu ngi lay nuyu maa di fay. yow yaay porte-parole bu Ligue démocratique LD bokk ngeen itam ci coalition benn Bokk Yaakaar situation Sénégal fu mu toll dafa mel ni li ko marqué bokk na ci actualité politique bi nga xam ni indi na poccoxoo ci wàllum politique ci wàllum justice daanaka li ni mel sax moo xaw indi ab réero ci ay manquement yi nga xam ni itam moom la ñuy wax ci processus électoral bi lan mooy sa réaction bu njëkk ci wàll wi ni mel. waaw li ñu dund actuellement moom euh, lu métti la defe naa crise bu mel nii euh, mos na am Sénégal parce que 1964 amoon na crise bu rëy mais ci at yi passé lii mosuñ ko dund Sénégal euh, bu ñu amee pluralisme politique be léegi li ñu dund actuellement mosu am Sénégal parce que bu ñu demee ba ay jafe-jafe dox ci ñaari kuréel notamment waa assemblée nationale ak justice ba assemblée nationale taxawal benn commission d' enquête parlementaire euh, ba benn juge constitutionnel porte également plainte benn partie politique li ñu mel euh, mosuñ ko dund Sénégal donc loolu dafa wone ne ñu ngi ci crise bu garaaw a garaaw bu garaaw te li indi crise bi moom wax nga ko léegi parce que jafe-jafe bu amee boo naree euh, toog xalaat ba indi solution ci jafe-jafe yooyu il faut nga xam lan moo ko indi li ko indi mooy lu ñu constaté comme ay dysfonctionnement ci processus électoral maanaam bu ñu waajal élection bi amoon na ay rëkk-rëkk yoo xam ne ñëpp dañ ko constaté dañ ko seetlu parce que euh, mois de décembre bi passé ñi naroon nekk candidat élection présidentielle déposer seen parrainage am na ñu bari ci ñoom mot nañ euh, ëpp nañ fanweer mot nañ euh, quarante ne ñoom d'accorduñu ñu ñu vérifier seen parrainage ne nañ d'accorduñ ci ba ñoom ñoo bindoon président de la république président de la république recevoir de waxtaan ak ñoom ñu continuer processus bi ba le vingt le vingt janvier deux mille vingt quatre conseil constitutionnel génn benn liste vingt candidats ñoom ñoom ñoo war a dem ci élection présidentielle génn ci liste boobu Karim Wade te moo nekkoon vingt et unième Karim Wade ne d'accordul def recours ci vingt yooyu ñaar fukk yooyu ñu gis benn jigéen boo xam ne également am na ñaari nationalité am na nationalité Sénégal am nationalité France te loolu normal munoo nekk candidat élection présidentielle pour jite sénégalais yi am nationalité Sénégal am beneen nationalité donc loolu yëpp ay jafe-jafe la te président République bu mu defee discours am le 3 février dafa ne jafe yoo jafe-jafe yooyu moo tax mu ngi proposé ñu reculer date élection présidentielle mu bañ a am le 25 février mais ñu def ko beneen jamono alors waa assemblée nationale aussi taxaw ci benn président la République be ñoom ni ñu taxawee waa assemblée nationale ñëpp gis nañ ko waxtaan nañ jafewoon na mais politique moo mel noonu démocratie moo mel noonu amoon na coow mais finalement ñoom proposé nañ pour ñu def élection bi le quinze décembre. mais Moussa Sarr gis nañ ci waxtaan woowu gis nañ ni euh, leader bu LD Nicolas Ndiaye moom teewu fa woon. waaw Nicolas Ndiaye teew fa woon ci demul ci réunion commission des lois demul également ci plénière bi loolu lu tax demul moom ah, boo ko oowee rek moom dina la ko expliquer mais man constaté naa ne. Hmm. demul ci assemblée nationale boobu. waaw lu tax demul nag moom peut-être que am na ay raisons mais xam naa ne waxoon na ko waa groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bi noon na wax na leen du ñëw ci plénière boobu donc loolu moom man xam naa ko ci parce que waxtaan naa ak moom. bindoon na waa Benno Bokk Yaakaar ne du tee. est-ce que nekkul ni li ñuy ruumandaat di ko laam-laame que ni yéen dàkku leen euh, àndoo leen ci rapport bi. mais loolu kay wax nañ ko ba ñëpp euh, dégg nañ ko parce que ñun balaa président di def discours am le 3 février parce que président mu ngi def discours am le trois février 2 heures. 14 hmm. heures la def discours am mais ñun le 3 février ci suba avant 10 heures euh, elle de génn na benn bataaxal benn benn génn benn communiqué. euh, réaffirmer position ñu nu waa Ligue démocratique suñ position mooy bu ñu waxtaanee ba d'accord ne élection war na am ba président jël décret ne élection war na am le vingt cinq février ñu respecté posi ñu respecté date boobu loolu mooy suñu position loolu wax nañ ko waa CDS confédération pour la démocratie et le socialisme te ñu bokk ci ñoom ñoom aussi wax nañ ko donc position de principe boobu ne chaque fois bu ñu amee date élection dañ ko war a respecté loolu mooy suñu position jënd nañ bataaxal boobu balaa président di def discours am président def na discours am le 3 février euh, deux heures bon wax na ne lii ak lii moo tax muy proposé ñu reculer date élection bi bon loolu loolu moo fi am vraiment loolu moo fi am. d'accord léegi euh, gis nañ ci loolu sax ñaari ancien chef d'État bind ab euh, communiqué wax ci situation réew mi même bu fekkee ni sax ancien président bii di Abdou juuf moom gën na leeral li nga xam ni itam bëggoon na ko wax. waa xam nga boo euh, ñun ñëpp dañu seetlu ne Abdou Diouf par exemple je bu mu jógee ci boppu réew mi 2000 ba léegi waxul dara li jëm ci Sénégal te loolu def ko waxoon 2000 mais du prononcé wu ci politique Sénégal. bu ñu nag ba deux mille vingt mu wax ci biir politique Sénégal moom ak président Ablaye Wade loolu dafa wóone ne rek lu ñu dund actuellement crise bu grave la crise bu métti la parce que ñoom ay sénégalais lañ lu ñu am yépp Sénégal lañ ko amee parce que boo demee ba sa réew def la président de la république euh, ñaar fukki at comme Abdou Diouf wala fukki at ak ñaar Ablaye Wade loolu dafa wone ne sa réew boobu jox na la lépp donc bu ñu demee ba ñoom ñu ci seen baat wax ci lu ñu dund loolu man ni ma ko gisee d'abord dama ko rafetlu parce que ay sénégalais lañ mais deuxièmement dafa wone ne crise bu ñu dund ni crise bu grave la te moo tax lu ñu wax ci seen bataaxal boobu dañ ko war a dégg dañu war a def ndànk dañu war a waxtaan dañu war a dialoguer dañu war a concerté parce que même guerre bu amee ci waxtaan lay mujje comme réew bi ñun ñoo ko bokk kii dafa jaar ni kii jaar nii mais ñëpp dañu bokk jël ñu bokk Sénégal te ñun politiciens moomuñu Sénégal ñii politique ñoo gën a néew Sénégal donc ñii politique amuñ droit jël réew mi en otage di leen def lu leen neex parce que boo compté woo ñu nekk ci parti politique di politique ñoo gën a néew sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi wala bitim réew te defuñ politique donc moo tax ñun politiciens yi dañu war a def ndànk war nañ am ay jafe-jafe parce que loolu mooy démocratie mais bu ñu amee jafe-jafe jafe yooyu violence mënu ko régler waxtaan moo ko mun a régler parce que bu jafe ay manifestation xoolal deux mille vingt et un ba deux mille vingt trois ñaata sénégalais ñoo ci faatu que ay soixante sénégalais. seen njaboot ñàkk ñu détruire fii ay biens matériels biens publics biens privés ay station ay magasins ay boutiques ay marchés fitna boobu amuñ droit continuer di ko teg Sénégal donc bu ñu amee ay jafe-jafe dañu war a toog waxtaan te wax naa ko léegi boo gisee démocratie Sénégal ex si fii ba ñu def ñaari alternance 2000 ak 2012 loolu waxtaan moo ko indi. parce que élection daal na jafe Sénégal fii dañ doon voté sans candidature sans isoloir mais bu ñu manifester quatre-vingt-huit Abdou Diouf dafa waxtaan table ronde ne lépp la ñu waxtaan on va discuter de tout avec grand T mais bu ñu demee ci waxtaan boobu loolu moo indi code consensuel Kéba ba quatre-vingt-douze boo xoolee ci quatre vingt bi ñu amee code boobu dem élection quatre-vingt-treize quatre-vingt-seize dem quatre vingt dix deux mille ba deux mille douze daanaka élection Sénégal amatul contestation parce que léegi élection kenn mënatul fraude yéen journalistes yi chaque fois bu ñu amee élection bu ñu afficier résultat ci bureau de vote yi dix huit heures wala yi nii ci biir réew mi dañu joxe résultat directement ci rajo yi ak télévision donc élection kenn mënatu ko fraude Sénégal mais li ko indi waxtaan moo ko indi donc ñun waa démocratique lu ñu gëm mooy fitna violence mënul régler dara li mun a régler problème yi li mun a régler jafe-jafe yi mooy waxtaan te comme waxtaan mooy mujje dañu commencé ci waxtaan boobu waxtaan boobu sax nga wax président de la république woote na ab dialogue euh, yéen LD moom di ngeen ca teew waaye est-ce que daanaka kàddu yi nga xam ni yaa ngi koy joto dégg ñu ci bari ñoom nee nañ itam du ñu teew ci waxtaan woowulee kon yow li ngay wax nii kon dana nakaree régler de waaw mais ñoom bu ñu bu ñu teewul ci waxtaan boobu lu ñu bugg ñoom ñu continuer di manifester xam nga continuer di manifester aussi loolu mënul am parce que sénégalais yi xam ne amuñ parti politique seen yoon nekkul ci politique ñoom dañu xaar bi élection ñëw rek ñu dem voter sénégalais yooyu war a dem marché wala dem seen liggéeyukaay wala dem seen moyen de transport outil dépense chaque jour ngay manifester ñoom loo leen di def. parce que loolu aussi il faut ñu xool ko mu mënuñ toog ñu manifester chaque jour ma répété ko am na ay Sénégalais yoo xam ne seen yoon nekkul ci politique lu xaar en tant que citoyen ñu ne élection yi tey la ñu jël seen carte électeur dem voté ñibbi dem doxi seen soxla mais boo manifester chaque jour ñoo xam ne dañu war a ut dépense dañu war a liggéey dañu war a dem hôpital faju loo leen di def te moom moo réew mi parce que yow yi yow mi politique yaa gën a néew ñi des ci Sénégal donc comme moomoo Sénégal da nga ko bokk ak yeneen sénégalais te yow mi politique yaa gën a néew mais da nga war a def nag boo taxawee ne du ma waxtaan boo waxtaanul looy def da ngay geer boo waxtaan da ngay geer te même boo geeree ah, waxtaan mooy mujje donc seen position c'est une position irresponsable ñoo xam ne bëgguñu waxtaan seen position c'est irresponsable parce que bu ñu bëggul waxtaan ñoom dañu bëgg a indi fitna ci réew mi te également sénégalais waruñ ko nangu donc ñi bëgg waxtaan nañ waxtaan bu ñu amee solution continuer ñoo xam ne bëgguñu waxtaan ñu xool nu ñu def mais manifestation moom mënul continuer mënul continuer mënuñ di manifester chaque jour loolu moom c'est pas possible parce que quand dañu am réew boo xam ne c'est un pays organisé c'est un pays organisé te les autorités j'espère bien waruñ bàyyi ñoo xam ne di leen ñu waxtaan waxtaanuñu mais chaque jour dañuy manifester loolu moom defe naa bu ñu ko bàyyee rek ñoo xam ne amatuñu ren loolu mënu continuer te ñoom maa ngi leen di wax nañ xool li xeew ci sous région bi li xew ci sous région bi nañ ko xool ba léegi Sénégal nekkul ci yooyu mais nañ def attention nañ def ndànk parce que réew mi moomuñ réew mi moomuñ nan la ñuy def ci élection yooyu ndax dañ ci war a réintégrer Karim Wade ak Ousmane Sonko ak datu élection bi nga xam ne jàpp nañ ko fukki fan ak juróom ci weeru décembre ndax euh, loolu waxtaan moo ko war a euh, lal wala. waaw waaw waxtaan rek cest à man mënu ma wax ne kii war nañ ko intégrer kii war nañ ko intégrer loolu suma responsabilité loolu responsabilité ñu nekk ci euh, géewu politique bi la acteur politique yi bu ñu toogee waxtaan ñoom ñooy wax kii war na bokk kii war na bokk bu ñu d'accordé man awma ci problème mais li ma mun a wax daal mooy manifestation fitna mënul tax nga imposer candidat loolu moom mënul am pour candidat bokk il faut que ñu waxtaan mais boo jëlee xalifa Babacar Sall bokkuloon ci élection présidentielle deux mille dix mais waxtaan bu ñu amal deux mille vingt moo tax Khalifa Babacar Sall bokk ci élection moo tax Karim Wade bokk ci élection parce que 2023 bu ñu waxtaanee waxtaan boobu moo indi Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall bokk ci élection 2024 boo gisee Karim mu jur bokk ci vingt yi c'est parce que fa am problème nationalité mais bu ko réglé woon avant du am problème. d'accord Karim Wade bu jógoon teel a régler problème nationalité am du am problème donc waxtaan boobu moo tax ñaar ñooñu Karim Wade ak Khalifa ñoo xam ne bokkuñu loon ci élection deux dix neuf waxtaan deux mille vingt moo leen intégré pour élection deux mille vingt quatre donc waxtaan rek moom mun a intégré ñi nga tudd. Moussa saar ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi di sant maa ngi di félicité maa ngi di encouragé. di fàttali ni yow yaay porte parole bu Ligue démocratique. jërëjëf démocratique. jërëjëf démocratique.